wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala rabbi ashrax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj al lisaani rashidan murshida wa nawwir lisaani wa qalbi irshada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 mu dëppoog fukki fan ci mois de euh, septembre bi ñu nekk wala fii di ko wax satumbar atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett miladiya isa ci juddu seydina isa alayhi salaam bokk ñu bokk yàlla ñaar fukki fan ak juróom bokk ci lim yu yi kon tey ci dimaas ji rafet na ci ñi nga xam ne am na ñaar fukki fan ak juróom waaye ñi am ñaar fukki fan ak ñeent rafet na kon mu ngoog waaye ñi nga xam ne dañoo am maanaam ñaar fukki fan ak ñeent dafa fatt ci ñoom dafa fatt ci ñoom dafa fatt ci ñoom mu ngoog waaw ñaar am ñaar fukki fan juróom nag moom rafet na ci ñoom mu ngoog dibéer ju nekk nag ñu koy wax dimanche di yowmul axat tey dañ ciy tere tere wattandiku ku ci wattu walla ku ci tàggoo donte daja naag lim bu rafet ci ñi nga xam ne am na ñaar fukki fan ak juróom teewut dañ ciy tere tere wattandiku ku ci wattu wala ku ci tàggoo duaa ul yow ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيح لنا من أمرنا رشدا ñaan gi jaaroon na fi soo demee ca suratul kahfi danga fa fekk defoon nañ ci ay leeral rabbana yo suñu boroom atina yàlla nga may ñu min la dun tukkee fi yow bàyyi koo fi yow jóge fi yow ci yow rahmatan yërmande wa ayih lana min amrina rachada te yombalal ñu suñu mbir jàppandalal ñu ko defal ñu ci tawfiix ak taysiir ak falaak naja te nga jubalal ñu suñu mboole mi mbir allahuma amin kon ñaan gaangoogu soo demee ca suratul kahfi danga ko fa fekk asxaabul kahfi xale yooyu ñaanoon ko seen borom subhanahu wa taala bañ duggee ca xuntima jaaroon na fi defoon nañ ci ay waxtaan kon mbokk yi ñaan ngaa googu ñu ngi ñëw léegi ci xadis bi incha allah ci kàttanu suñ borom subhanahu wa taala xadisul yowm an aishata radiallahu taala anha an النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له ma safarati alkirami albararati wa masalu alladi yaqra wa masalu alladi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alayhi shadidun falahu ajraani muttafaqun alayhi bokk ñu bokk yàlla jële nañ ci ndey Aïcha radiallahu taala anhu suñu yaay ju baax jooju suñu yaay ju sell jooju suñu yaay ju yiw jooju boroom kisa bi nga xam ne xisa bu rëy la ci alquran eh, ba nga xamee ne am na waa ju ko joxoñ baaroom eh, di ko tuumaal ku tol ni nday aysa soxnaa si yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax nga xam ne bokk yi adduna moom kenn mënu ci mucc su fekk ne woon ne kenn dana ci mucc rek nday aysa mi mucc ci tuuma ndax moom soxnaa si bi la sallallahu alayhi wa nekk ci ron yonent bi kon ku nekk waroon naan waroon nay xalaat ci moom leneen ba mu des di ko joxoñ baaroom di ko tuumaal kon loolu danga ciy dégg ne tuuma euh, jommut kenn ndegam soxnaa si yonent rawatina seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxnaam rawatina nday aysa euh, jigéen ju sell ju yiw ji nga xam ne euh, suñu boroom subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xusoo nisfa diinikum min hazihi xumayra jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen ju xong ji ci jigéen ji nga xam ne mooy jigéen ju xong ji di day aysa radiallahu taala anha seen genn wàllu diine nekkoon ku baax a baax a baax a baax nekkoon ku ragal yàlla ba benn bis sax ragal yàlla àggoon na ci moom picc nu naaw romb ko mun a ak a neexoon ma nekk picc mais ba bu ma faatoo sama borom subhanahu wa du ma laaj dara ndax xam ngeen ne chariat euh, islamiya jàngale na ne bàyyi ma yi yu dem ndekki picc yi ak bàyyi ma yi faatoo dañ leen di def poussière maanaam yàlla du leen atte da leen def poussière ñu naaw yaay Aïcha picc mi ne fër naa romb ko mu ne aka neexoon may picc mi ba bu ma faatoo sama borom subhanahu wa du ma laaj dara jigéen joo xam ne ragal yàlla àggoon na ci foofu ku texee di koo xamante ne bi naafiq bu mag boo xam ne amul kenn ku muy tuumaal ku du soxnaa si bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bokk ñu bokk yàlla laa raata fi dunia wala najaata min annas fi dunia wala najaata min annas bokk yi àdduna kenn mënu fi mucc amul noflaay maanaam àdduna laa raata fi dunia àdduna amul noflaay képp ku fi bëgg noflaay rek nar ngaa sonn waaye nag wala najaata min annas waaye nit ñi it kenn mënta mucc ci ñoom ak koo man di doon loo baax baax baax baax dana am ñoo xam ne sa noon la ñuy nekk ñu texe di ñoo xam ne faw dana la joxoñ baaroom tuumaal la waaye yow loolu bu mu la déranger yow fexeel ba sa digganteeg sa borom te tabaraka wa taala leer nañ comme ay Aïcha mi nga xam ne kere biñ ko joxee ne baaroom tuumaal ko alquran moo wàcc setal ko moom nday Aïcha radiallahu taala anha nga xam ne eh, alquran moo jóge wax moo jóge ci kaw wàcc ñëw setal ko waaye gis nga it eh, suñu yaay Maryam yaay Isa moom tamit kero bi nga xamee ne indi na doom jooju di saydina isa alayhi salaam nitam joxoñ ko baaroom bëgg ko tuumaal waaye yàlla seetal ko ci doomam jooju di eh, di eh, isa ibnu maryam eh, alayhi salaam kon mbokk yi loolu boo gisee ñu indi ko rek pour wane ne tuuma kenn mucc ci tuuma kenn mucc ci bul bañ ñu tuumaal la bul bañ ñu sedd la ci gaalu xaj waaye fexeel ba bu la ca kenn fekk ngay xam bari na ñoo xam ne ñu ngi leen di waxal di leen tuumaal te leen leen tuumaal laaluñ ca dara jegewuñ ca dara lu dul ne ay noon ak ay yàqkat rek ñoo leen di joxoñ baaraam di leen tuumaal waaye ni ma la ko waxee rek yow fexeel yow ba sa digganteeg sa boroom leer nañ ba bu ëllëgee képp ku la joxoñooñ baaroom tuumaan la lam la joxoñooñ baaroom tuumaan la mu taxaw layal ko fa kanam suñ borom tabaraka wa taala rek ab jullit as gor nit ku baax loolu lay xëntwoo bul xool bul geestu bul bul weddi sax maanaam bul lay as du lay waaw as du rey yàgg baxut dara yàgg-yàgg danañ xam lan moo danañ yow yoway kan yàgg-yàgg dana xam li nga xam ne mooy dëgg yàgg-yàgg adduna dana la setal te loolu mooy lan yàgg-yàgg suñu borom subhanahu wa taala dana la setal kon képp koo xam ne ñu ngi lay tuumaal wala di la joxoñ baaroom da xam ne du yow yaa ko waaye ay ñu sell ay ñu yiiw ñu baax tuumaal nañ leen joxoñ leen baaroom te lañ leen def laalum ci dara ndax ku mel ni Ndey Aïcha soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu joxoñ ko baaram tuumaal ko ah, kon yow yow kon waxaale wunda ku may ni nday Mariama eh, alayhima salaam ñoom ñaar yal na yàlla yokku eh, seeni leer muy eh, soxna Mariama di yaay Isa ak nday Aïcha radiallahu taala anhuma yal na gërëm leen ñoom ñëpp ku ci nekk joxoñ nañ la baaram tuuma waaye alquran moo la setal ba nga set wécc ragg la ba nga set wécc ba mboolem ku la tuumaaloon rek am gàcc yàlla taxaw weddil la waaye yow ginnaaw yow munoo am lu mel noonu buñ la joxoñee baaroomu tuuma muñal te bay lépp ci loxoy suñ borom tabaraka wa taala bis dina ñëw yàlla setal la ca bis ba nga xamee ne fépp la dëgg fépp la lépp yi leere bis ba nga xam ne mooy dëgg ga muy bis ba nga xam ne eh, suñu borom tabaraka wa dana taxawal jinne ak doomu aadama atte leen su boobaa képp ku la joxoñoon baaraamu tuuma dana indi aw lay wu wir indi ko yow yàlla setal la moom mu toroxal ko kon mbokk yi rikwaay bu ñuy tuumaal suñuy moroom kon mbokk yi rikwaay bu ñuy xaste bu ñuy tuumaalante buñ tuumaal kenn ab julit warta tuumaal moroomam jullit ab jullit warta noonu mu jullit ba tax nga di ko tuumaal wala nga di ko joxoñ baaroomu tuuma yal na mu musal ci loolu yal na yàlla musal ci loolu moo tax nday ay chemie defoon nañ ko loolu waaye ña ko defoon ñëpp mujj nañ torox innahum usbatun am mbooloo lan woon moo xamante ne bi maanaam daa am ku ca joxoñoon yaay Aïcha waaye E, tuumaal ko suñu borom tabaraka wa taala ñëw e, setal ko kon yow nag ginnaaw munoo am loolu alxuraan wàcc setal la yow muñal delloo mbir yi ci yàlla te nga muñ rek bay lépp ci loxo suñu borom yàgg baxu dara yàgg-yàgg lépp dana leer bokk ñu bokk yàlla loolu bokk yi entre parenthèse la kon hadis bi mi ngi nii jëlee nañ ci nday Aïcha mi nga xam ne mooy ku sell ku yiw ku baax kooku di soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa nee na mathalu alladi misaalab ka nga xam ne yaqura dana jàng alquran alquran wa huwa te moom day xaafizun aji mokkal la ko ku ko wattu la ku ko mokkal la loxoo ñeel ko kooka day ma safaratil kiraamil bararati kooka day mi ngi ànd ak yu baax ya wax nañ ne ay yonente yi wax nañ ne safarul kiraamil barala mooy ay malaaka muqarraboon yi lan malaaka yi nga xam ne dañoo jege suñ borom tabaraka wa taala wax nañ ne ki nga xam ne dafa mokkal alxuraan moom ñoom ñoom ñoom malaaka yooyu wala ñoom yonente yooyu ñooy bokk fu ñu dëkk ñooy bokk fu ñu nekk waaye wa masulu ladi misaalab ka nga xam ne nag eh, yaquro dana jàng wa huwa te moom yataahaduhu ma ngi cay jànkantuwante ki jafe-jafe maanaam ma ngi cay gàg di taxaw boo ànd caaki coona boo ànd caaki finna wa huwa te moom alayhi eh, war na huwa moom alayhi ci moom shadidun dafay nekk loo xam ne lu métte métt la fa lahu ajraani kooku moom dana am eh, ñaari yoon hadis bi nag hadisu muttafaqun alayhi la Buxaari yu génn na ko muslim génne na ko al imam buxaar buxaari ak imaamul muslim ñoom ñëpp génne nañ ko mbokk yi hadis bi li muy jàngale rek dafay jàngale ngëneelal alquran jàng alquran ni mu amee ngëneel ñu jëlee ci ndey Aïcha mu ne képp koo xam ne dangay jàng alxuraan te fekk yow danga nga kaa mokkal yow yàggaay yu baax yu sellu yu yiw ya muy yónnante ya wala boog malaaka malaayikal muxarrabuun malaaka yi nga xam ne dañoo jege sa rëkk suñ boroom ñooñee ngay àndal yow mi nga xam ne dangaa mokkal alxuraan ñooñee ngay dëkkaaleel ñooñee mooy nekk say àndandoo waaye ki nga xam ne moom su koy jàng da ci am fitna di ci am jafe-jafe mu ci moom mu ciy gàgg jafe-jafe yooyu kooku moom eh, yonent bi sallallahu nee na am na ñaari yool yool bi nga xam ne mooy yoolab jàng bi ak yo bi nga xam ne ma ngi ko ci am ak jafe-jafe bi nga xam ne mi ngi ko cay am pour jàng ko kooku loolu la ko suñu borom subhanahu wa di fay nga xam ne kon am na ñaari yool bokk ñu bokk yàlla ab jullit dafa war a def itte fexe ba mën a jàng alquran soo ko mënta mokkalit nga fexe ba def itte ba mën a tiim kaamil bi di ko jàng di ko ijjant di ko boole bokk sàggante dëgg mënta weesu ab jullit boo xam ne mënoo jàng alxuraan bokk yi am na ñoo xam ne fi mu ne fatiha sax mënuñ koo jàng mbokk yi ab jullit dafa war a def itte ba xam alxuraan soo ko mënta mokkalit waay waay waay waay nga fexe ba boo ubbee kaamil bi soo ko tiimee maanaam nga mën caa liifantu mën caa mën caa ijjantu bonta taqale ba jàng ca eh, fexe sax ba at mu jot nga wàcce kaamil bi soo munut eh, weer wu nga wàcce ko nga fexe ba at mu jot nga wàcce ko soo munut semaine bu ne nga wàcce ko nga fexe ba weeru jot nga wàcce ko soo munut weeru jot nga nga wàcce ko nga fexe ba at mu jot nga wàcce alquran waaye jullit boo xam ne xamoo dara dara dara ci alquran munoo jàng alquran Ah, bokk yi loolu ak sàggante la alquran ji nga xam ne mooy kalamullah di wax suñu borom subhanahu wa taala nekk melo ci suñu borom subhanahu wa taala te melo ak jëmm kenn mënu ko teqale moo tax alquran nekk loo xamante ne bii képp ko taqoog moom rek dangay ngay suñu boroom dangay jege yàlla dangay ngay yàlla ndax alquran melo la ci yàlla ndax wax dafa dafa takkook boroom wax kenn mënu koo teqale ak boroom Abdul Ahad mii di wax waxam ji muy wax kenn mënu koo teqale ak moom te alquran mooy waxi suñu boroom subhanahu wa di melo ci suñu boroom subhanahu wa taala alquran nekkul xalq nekkul mbindeef du lu ñu bind nekkul mbindeef mais alquran waxi suñu boroom la subhanahu wa taala alquran melo la ci yàlla te melo dafa taqaloo ak jëmm kenn mënu ko teqale ak jëmm moo tax nit ku nekk war nga def itte bay jàng alquran moo tax képp ku taqoog alquran rek da ngay yàlla képp ku taqoog alxuraan da ngay jege suñ borom subhanahu wa taala waxuma la sax jege ko yàlla jege yàlla waaye képp ku taqoog moom da ngay mujj am ngërëmal suñ borom subhanahu wa taala bokk ñu bokk yàlla moo tax suñu mag ñu baax ñépp koo ci dem rek maanaam première euh, itteem mooy alquran koo ci fekk rek alquran la jël def ko muy dusturam moom la jël def ko muy sukkandiku waayam alquran lay waxee alquran lay jëfe mboolem suñ mag ñi nag yàlla yàlla fay ñu leen kon mbokk yi ab jullit dafa war a def itte ci alquran jiim koo xam jim koo man jim ko sax mokkal su la yàlla dogalee mokkal weesu na ci yow dem nga ba mënutoo mokkal waaye waay waaye defal ittee ba man koo tiim man koo jàng man koo liifantu mën a xàmmee arafi yi baa xamee siin xàmmee miim alif laam laam ha saxeer nga man ko liifantu boo noppee nga mën a fexe ba jàng mask yi baa ñu mask ci suuf mii bi siin ñu masque lonk muy as miim ñu masque ci suuf muy mi ñu ne la bi as mi bi as mi bi as mi bu yàggee rek nga mën ko boole ne bismi bi asmi bismi allah laahi allah laahi allah laahi nga mën a wax allahi bismillahi boo ko jàngee noonu rek bu yàggee bokk yi nga mën ko ndax man nga loo xam ne moo gën a jafe loolu bu dee yow maçon bi fexe nga ba xam ni ngay maçon ay kon soo defee ne itte ji nga def ci ba man maçon soo ko defee itte ci jàng alxuraan rek di nga ko man yow nappkat bi kazaalika na ko noonu yow chauffeur bi it kazaalika na ko noonu yow commerçant bi it kazaalika na ko noonu waaye yow mi nga xamante ne bii ci àll bi nga nekk di bay it ni nga def ba mën a eh, bay sa dugub bay sa gerte bay sa lépp am sa dugub am sa gerte itti jooju nga ci def ak coono boobu nga ciy daj soo ko dajee ci jéem a xam alquran bokk ñu bokk yàlla di ko xam rawatina nag ki nga xam ne moom jàng na tubaab ba nekk ci maanaam amee ci ay garaat am ci ay diplôme maanaam dem ba sax di ci fayeeku weer te mënoo wax benn baat ci alquran te mboolem lépp lu luy français yow jàng nga ko ba xam ko ci alquran xamoo ci dara nga ne ab jullit nga ah, bokk yi nañu seetaat loolu nañu taxaw seetaat foofu bokk yi alquran mooy suñu téere moom la ñu yàlla jox moom la jox yonent bi sallallahu alayhi wa mu indil ko xeetam digal leen ñu di ko sonne di ko jàng ndax yonent bi sallallahu alayhi la ko yàlla waxoon ne bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insaan min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al ma lam yaalam yonent bi salaam moomu yàlla moo ko wax jàngal mu sonn ci lool doog a mën a jàng ndax jibril mboq na ko xoj na ko lu def na ko pour mu mën a jàng ndax ba mu ko njëkkee wax jàngal iqra def na ko bi qaari man xaw luy jàng bam ko bam ko fekkee ca xaaru ira in mu sonal ko fa lool ba ci bim ñëwee ci yoonam bu njëkk bimu ñëwee ci eh, soxna Xadija di soxnaam mu ne ko man daal daa am lu ma fekk ca xeer wa ci doj ma nekkoon naan ma jàngal fekk booba dafa ñëw tiit naan sàmmiloo nii sàmmiloo nii dasiroo nii dasiroo nii sàng leen ma sàng leen ma bam demee gis nga jigéen ju baax ni mu baaxee yaay Xadija ne ko su la laajatee looy jàng su la laajatee jàngal da koy wax ne ko lan laay jàng ba mu delluwaatee ba ko fa Jibril fekkee ne ko iqra def na ko maaza aqra lan laay jàng Jibril na ko iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaan min alaq jàngal sa turu kon jàng ndekete ci turu boroom la ñuy jàng lépp looy jàng jàng ko ci turu boroom bi bismi iqra bismi rabbika jàngal sa turu borom ci sa turu borom bi kon rawatina alquran bokk ñu bokk yàlla ah kon lépp loo mën di jàng rek la nga waroon a njëkk a def mooy nga jàng alquran ba noppi looy jàng ak lu mu mën di doon nga dog ko cay teg su yàlla dogalee jàngoo ko ba jàng la nga jàng ba noppiit waaye waaye waay waay yi defal itte ci xam alquran bokk yi defal itte ci xam alquran defal itte ci xam alquran amoon na suñ eh, baay bu baax bu nekkoon fii ndeysaan nekkoon nit yàlla ñu ko daa wax bàyyi jàkk yal na yàlla yokk ay leeram dadaa wax soo amee doom na ko xamal ñett na ko xamal yàlla na ko xamal yonent bi na ko xamal alquran na boo ko xamalee al alquran ci xam gi muy xam alquran ci lay xamaale mboolem diine lislaamam ak lépp lu ci nekk moo tax da koo tënkoon foofu rek ci al iman eh, al islam al iman moo tax bu daa wax naan soo amee doom na ko xamal ñett xamal ko yàlla xamal ko yonent xamal ko alquran allahu akbar muy lislaam di iman di ihsan yal na yàlla boole ñu dimbale bokk ñu bokk yàlla kon bokk yi man araada al qurba min mawlah fal yaqri al quran la yansa qultu man juri rida arrahman fal yusbitan tadabbur al maani mu ngoog alquran daal képp ku taqoog moom di ko jàng di jege yàlla képp ku taqoog moom di ko jàng da am ngërëma suñ boroom yonent salaa salaam nee na allazi yaqru alquran wallazi laa yaqra'u alquran ka masali alxayi walmayit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kiy jàng alquran ak ki du jàng alquran ni ñu wuutee mi ngi mel ni kiy dund ak ki dee dund ak ki ni ñu wuutee ndekete bokk yi noonu la kiy jàng alquran ak du jàng alquran noonu la ñu wuutee xam nga kii dund day wuute na kii dee lool kii dund day wax di di lekk di naan di def bépp activité bu mu mën di def ki dee nag moom amatul benn njariñ moo tax dañ koy daal di yóbbu rek gas ba mu ñu suul ko xool leen bokk yi xool leen différence boobu ci jànkatab alquran ak ku di jàng ni ko yonent salaa salaam melale ku mel ni kuy dund ak kuy mu dem ba àgg ci di wax ne sax al baytu la si yaqrawu alquran wal baytu la si fii alquran ka masili alxayi wal mayit mu ne néeg bi nga xam ne wala kër gi nga xam ne sax dañ fiy jàng alquran ak kër gi nga xam ne duñ fa jàng alquran dafa mel ni kii kuy dund ak ku dee kii dund ak ku dee noonu ñu wuutee noonu la kër gi ñuy jàng alquran ak kër gi du jàng alquran noonu lay wuutee kazalika ni ki noonu it kii jàng alquran ak du jàng alquran la wuutee ki nga xam ne du jàng alxuraan moo tax mbokk yi ab jullit war naa def itte ci góorgóorlu ci jàng alquran guddi ak bëccëg suba ak ngoon fu mu jàppandee rek nga di ko jàng kon mbokk mu ngi noonu hadis baa ngoogu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na eh, ci fekk moom mokkal na ko man na ko kooku day moo gaa yu baax ya yu selle ya ñooy ànd ma annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa xusana ulaika rafiqa ñooñu lay àndal am ñu ne mooy malaaka muqarraboon yi yu jege yàlla yi ñooñu lay àndal waaye ki nga xam ne day jàng alxuraan ci ci lool maanaam moom mokkalu ko waaye nag ma ngi cay góorgóorlu def ci it di ca sonn di ko ijjantu di ko liifantu di ca sonn lool kooku yonent bi salaa salaam nee na am na ñaari yool yoolab jàng bi muy jàng alxuraan des ko koy fay waaye eh, maanaam coono bi muy am eh, des ko cay fay ci yonent bi salaa salaam nee na woon képp ku jàng benn araf ci alxuraan yàlla dana la fay fukk dana fay fukk benn araf waxul nag nee na nee na lam aqul alif lam walakin alifun wa laamun wa miimun waxuma nag alif laam miim na xaraf la waaye walakin alifun arfun wa laamun arfun wa miimun xarfun nee na boo ne alif ñu fay la fukk soo ne laam ñu fay la fukk boo ne miim ñu fay la fukk soo ne alif laam miim ñu fay la ci alif gu fukk fukki yiiw fay la ci laam gi fukki yiiw fay la ci miim gi fukki yiim fukki yiiw nga teg cee zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin kon ki tàmbalee ci alif laam miim ba ca mina jinnati wan naasi kooku fukki fukki yiwam yooyu ndax kenn xam na ñaata la kenn xamu ko bokk ñu bokk yàlla moo tax suñu maam bu baax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mas nañ ko laaj ne ko waaw alquran kaamil buñ jàng ba mu jeex lan mooy ab xaymaam lan moo koy xayma mu ne mu ngi mel ni kaw suuf dara nekku fii dara nekku fii du garab du tabax du dara ñu di jàll urus or jama ba mu tappaloog asamaan nee na suñ ko doon xayma loo xam ne mënees na wax ne mënees nañoo xayma ne lii mën naa weccub kaamil loola lañ koy xayma du waxut sax ne loolu mooy njëgg de waaye loolu lañ koy xaymaa allahu akbar kon mbokk yi alquran ab yoolam kenn mënu koo fay kenn mënu koo am euh, kenn xamul nu mu toll lu du suñ borom subhanahu wa taala yal na yàlla ba waxtu wu nekk saa su nekk ñuy jàng alquran di sonne alquran di ko jàng di ko jàngale moo ta yonent boo wax hadisam bu siiw boobu man taallama alqurana wa allama xayrukum man taallama alquran wa allamahu xayrukum ki gën ci yéen day man taallama alquran mooy ki xam la alquran ba noppi wa allamahu di ko xamle kon nag mu ngi noonu kon mbokk yi xam leen alquran su ngeen ko ba noppi nag ngeen di ko xamle jërë ngeen jëf mbokk yi kon eh, bis baa